xam lii xew ci àdduna warngal këpp rawatina fii fi diwaanu Sénégal doon na warteef ci mboolem doomi réew mi ñàkkuk jot gi waral li ëpp citoyen duñu matale warteefu ni mel tax ba Mouride Info indil leen seen rubrique journal de la semaine journal de la semaine ngeen fas yéene ci ànd ak Serigne Amdi Lo mu di leen indil mboolem xibaar yi nga xam ne xew na ci biir semaine bi ci biir Sénégal ak international dimanche lay jot waxtu wu nekk bu leen di fàtte di bës suñu bouton abonné ngir di jot vidéo yi saa suñu ko dugalatee